tey jii dama dama recevoir woon euh, ñi nga xamante ni ay ndaw lañ te zone militaire 5 recevoir woon leen pour 112 heures ñi ngi fa woon depuis le 20 20 21 22 kon tey la ñuy jeexal euh, initiative bi nga xamante ni état major daf ko am pour xale yi ñu rappeler leen ñoom seen rôle ci société bi xale yi ñu rappeler leen fàttali leen ne nekkoo leen ay xale nii rek mais da ngeen cee am da ngeen a bokk non seulement ci société bi mais da ngeen ci am ay ak ak ay yelef manam am nga si ak waye tamit am nga lo xamanteni dang ko wara def xale bi do ne ko institution lu mu jang ko rek dem teud keureum dang kay wax institution bi ban njeriñ la ban sens la am ci ci ci ci ci ci dëkk bi ba nga xamanteni mom moom su ko ci boppam dina ko approprier wu dina dem pour doxal ko legui biñ biñ bi ngeen setlo ci bir question yi ñom seen bop ñi ngi def yenn prise de conscience kon yaakar na li lu jara lu la li nga xamante ni armee bi def nañ ko pour véritablement que tey aussi gars yi gën ko joxaat euh, gëddëm euh, ci biir évolution wu nation Sénégal. xam nga ñi ngi jëm comme ni nga ko waxee ci ay élections donc élection yooyu nag maanaam xale yi bu ñu xamul li nga xamante ni ñoom lan moo leen wax ci dëkk bi. maanaam mën na mën na indi ay jafe-jafe même si nga xamante ni ñoom seen droit la ñu dem euh, voter ji hmm, walla ñu def ko devoir ñoom ñoo xam nan lañ koy tuddee waaye maanaam dañ koo war a def ci climat boo xamante ni climat de paix la te paix bi li koy indi mooy man ma respecté li nga xamante ni moom mooy say euh, droit mais yow tamit nga respecté li nga xamante ni moom mooy samay droit institution yi nga xamante ni dañ fi nekk pour garantir stabilité aussi ma respecté leen ma bañ a gis rek nit yi nga xamante ni ñoo fa nekk mais ma gis institution bi nga xamante ni moo fi nekk ak njëriñ bi nga xamante ni ak solo bi nga xamante ni am na ko ci askan bi wala ci société Sénégal te ni lii moo ñëw rek ak côtoyé bi ñu leen côtoyé boo seetloo am na maa ngi leen di posé question sax di leen laaj ñan ñoo ci bëgg a nekk ay commandant de zone dama leen bëggoon xool seen réaction mais gis ngeen loxo yooyu sax ñoo ëpp ci ñi nga xamante ni dañ leen laajoon ñan ñoo ci bëgg a nekk ay gouverneur donc gis ne maanaam armée bi au delà ñoom sax ñu nekk fi di leen di sécuriser territoire beeg yooyu ñoom dañ fi nekk pour population bi maanaam ñoom ak ñi ñoo bokk même rôle lépp dañuy dem pour le développement euh, du Sénégal parce que dëkk mënul am développement tant que jàmm amul foofu ak dëkk doo rafet